merci beaucoup jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf merci beaucoup jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërë ngeen jëf ñu déglu rek merci beaucoup ñu ngi sant ñëpp. sant sama collègue yi ma toogal ci table bi muy madame le ministre Fatou Diané di une grande dame di joxe kéemtulaay kàttanam pour doxal gis-gisu président ci jigéen ñi di nuyu di remercier mon frère et ami Abdoulaye Sow le ministre Abdoulaye Sow de par sa générosité et de par les efforts yi muy def pour que le travail collectif mën am njariñ ci askan bi waaye tamit mën am njariñ ci Euh, suñu parti ak suñu coalition mention spéciale mën naa wax mon jeune frère le ministre Pamane Ndour mention spéciale parce que yàlla dogal na ci bëgg-bëggu président Macky Sall poste bi mu nekkoon ma nekk fa ma xam nan la méttee ma xam nan la diisee ma xam lan la ci investissement personnel waaye ma xam tamit lan la laaj ci mobilité ak compréhension luy commencé day metti lu nit di door rek day metti mais suñu xel dal na parce que taxawaay bii nga am mooy taxawaayu ministre de la jeunesse taxawaay bii nga am mooy taxawaay ku nekk ci pointe combat bi tey bari na ñu foog ni que ñu déglu ñu déglu bari na c'est important li ñuy wax pour ñu xam bari na tey ñu defe ne ni que Mambay dafa bari histoire Mambay dafa bari compliqué Mambay def mais Mambay dafa nekkoon ministre de la jeunesse comme Pape Malick et le ministre de la jeunesse est à la pointe du combat c'est le bras armé du régime c'est le bras armé du gouvernement moom ak madame le ministre de la femme parce li ëpp ci askan bi ay ndaw ak ay jigéen lañ donc maa ngi leen di gërëm di leen remercier ci taxawaay bi ngeen am lii mooy sa taxawaay yow ku bëgg a jot Macky Sall dafa war a njëkk jaar ci yow te taxawaay bii nga am wane na nga nekk nangu la madame le ministre kuy dajale mbooloo ay jigéen ngay ut li président Macky Sall def ak suñu régime ci jigéen ñi ak ndaw ñi tey war na tax kenn warul nëbbatu ñu assumer bilan boobu merci pour le courage et merci pour l'engagement am na ñaar ñoo xam ni du ma leen remercier parce que dama jàpp ni que li ma boole ak ñoom dootul politique muy le ministre d'État Mbaye Ndiaye ak l'honorable député Farba Ngom dama leen remercier parce ci lii ma dugg nii ñoom bokk nañ ci li tax dellu gannaaw waruma ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ni ci keppaaru président la ñu xamante seet wóllëre ak dëgg am ngëm-ngëm moo tax tey yàlla egsi ñu fi ñu egsi Farba fierté bi nga am pour wax ni que man sa xarit laa wallaahi fierté bu baraw ak lu mënti def doy na waar comme man mën nañ xuloo ci suba bu ngoonee ñu toog waxtaan parce que benn ngëm-ngëm moo ñu boole moom xam na man xam naa yàlla xam na bu loolu weesoo xëy na bu yëf doon doxee yoon tey du ma fii sama waa parti jóg taxaw parce que wax dëgg yàlla lu lu yomb la maa ngi jéggalu parce que ñuy yéeg nit ñi ñoo bari mais waroon naa nuyu suñu euh, suñu tataar parce que ñun ñëpp wax dëgg yàlla uuf nañu muy madame le ministre Ndeye Saly Diop jërëjëf jërëjëf jërëjëf pour effort yi nga def tey suba ba léegi jërëjëf pour investissement personnel bi ngay def pour jàppale xale yi pour que parti bi am visibilité donc ma ni bu fekkoon ni que lépp ci yoon lay jaar lépp ci jàmm lay jaar lépp ci ak jub ak maanu lay jaar tey waruñu woon toog fii di wax tey waruñu woon déployer euh, force de sécurité et de défense yi tey force politique yi waruñu woon jóg Sénégalais bu nekk da nga waroon a jóg dem liggéey parce que wax dëgg yàlla du lu extraordinaire du lu bizarre du loo xam ni jar na egg fenn fi bay indi benn tension li tax mooy dafa am benn nit ku tudd Ousmane bu toog ni moom xam na li am ci réew mi lépp il est mieux renseigné que le président de la République moom moo toog ni am na rapport IGE bu ma épinglé ci teew loo xam ni dinaa ci ñëw léegi fa jóge man aw ma gàcce wax ko aw rusu aborder sujet boobu parce que wax naa ci waxati ci waxati ci mais moom fa baatam toll baatu ñu bari tollu fa la muy woote ni que moom la xam ñu bari xamuñu ko donc li ma mën a nangul kiy jaay kafe ci mbedd mi mais moom duma ko ko nangul duma ko ko nangul nee am na rapport bu IGE mu dem police ni dafa juum ni IGF e mu génnaat foofu dem euh, euh, Kër Massar ni rapport bu IGE bu mu liir ci internet lépp gis am na jamono bu muy egg dañ naan ko taxawal biñ ko waxee waxoon naa leen ni que egg na ci dañ dëpp bi billaahi egg que des na normalatul ñuy fooyee xelu nit ñi sénégalais bu nekk fii bu nekk ci ñun am nga sañ-sañu laaj réew mi ku nekk ci ñun am nga sañ-sañu laaj cër ci réew mi ku nekk ci ñun am nga sañ-sañu dox say droit waaye ku nekk ci ñun am na sañ-sañu bokk ci parti politique ku nekk ci ñun am na sañ-sañu dem société civile ci république lañ nekk république ñun ñëpp xam nañ ne lay doxee waa léegi boo demee di tuuti waay waay waay demal seeti nit ñi nga wax leen sa yéene ci réew mi waxal li nga nar a def ci réew mi waxal fi nga bëgg a jële Sénégal ak fi nga bëgg a yóbbu mais lan la ci ay sos ay wax lu dul dëgg c'est pas la première fois maa ngi def benn exercice ak ñenn ñu ma jege ñi ngi répertorier ñaata yoon la wax te du dëgg mais bii dafa garaaw bii dafa nar a wane ni que ñuy wax ñun ñii ñëpp nee na xamuñu dara ay sàcc la jubuñu jànguñu dañu fay teg pour ñu koy saaga mosuñu maa dégg ma saaga li xew tey ci tribunal mooy démb man bi ma ko dégloo dama ni sama rakk bi ma dendal ma ni wax alhamdulilah parce que nee na ñun ci ay caaxaan lañ ne et bu suba caaxaan yi dina jeex defe naa loolu la wax donc man jàppoon naa ni tey buñ demee tribunal dina génne li am rapport boo xam ne da ngaa toog tiim Sénégal yi ubbi sa portable lire ni lii rapport la moo épinglé Mame Mbaye Niang sa député nga yónni woon ko assemblée nationale mu kot ma la mu bëggoon amu ko yow nga ñëw nii rapport bi yaa ko yor waay waay waay waay waxoon naa leen bu mu reporté bu mu delloo avance bu def leneen na ñëw rek mu ni bu teg rapport bi léegi lii muy def nag dama leen di wax problème mu koy def man Macky Sall yónniwu ma Farba Ngom yónniwu ma kenn ci yéen waxuma ci ak kenn man maa dégg déclaration ma woo samay avocat ma porté plainte ba pare woo leen yéen journalistes yi jël leen seede ni leen bu produire rapport ma wax leen nan la rapport di mel wax leen rapport kan moo ko mën a def ma ni leen na leen ko jox yéen ngeen publier donc ay woote ci mortel combat ay kaay leen jàppale ma ma rey jaru ko bu ma président de la république waxoon man bay retirer sa wallahi azim je préfère ma bàyyi dem toog continue parce que kii kii du wax dëgg kii jubul kii mi ngi yàq parce que bu ko borom mayee moom mu am responsabilité toog wax après génn ni man Macky Sall moom mu yónni mooy man yabuma sénégalais yi koy déglu di ko gëm la yab Ousmane Sonko foogoon naa ni tey boo ñëwee tribunal da naan bu teg rapport teg mais man dinaa wax sénégalais yi yow yaay kan dinaa wax sénégalais yi ni ko doo wax ko du dëgg dinaa wax sénégalais yi ni ko nit ku bon nga et je dirai à la jeunesse sénégalaise à travers Pape Malick Ndour ni que c'est un manipulateur musu leen musu leen dégg mu ni leen lii laay def ci njàng mi musu leen dégg mu ni leen lii laay def ci jigéen ñi musu leen dégg mu ni leen lii laay def ci xale yi mais am na lenn lu mu wax loo xam ni gëstu leen ko nee na rapport bu IGE bu mu liir ci internet seetlu leen nag depuis livre solution bi lépp lu mu wax ci réseaux sociaux yi la ko jëlee ay wax ni pétrole la commencé ni dañuy bind lekk parce que le débat du pétrole existait dans les débats de Facebook mu dem jël toog ba ci yàgg dem jëli ay wax yu góor jigéen parce que wax yooyu lañ doon wax ci ci musu leen dégg mu ni leen ñaata tonne gerte lañ fi bay lii laay def pour yokk ko musu leen dégg mu leen ndox mi dafa manqué Dakar lii laay def pour yokk ko musu leen dégg mu leen courant bi fii la doy dinaa ko def ko def lii amul Mame Mbaye Niang sàcc la Farba sàcc la Mbaye Ndiaye sàcc la Macky Sall deful dara Macky xamul dara moom moo xamul dara parce que dinaa leen wax tey loo xam ni man tey laa ko xam ci tribunal Ousmane Sonko li wax lépp lépp lépp nekkoon coordonnateur du programme tey tey tey moom nee na moo téye rapport nee moo am rapport nee moo xam ni président di déggee ñoo téye document yëpp Ousmane Sonko tey la xam ne que man Mame Mbaye Niang musuma nekk coordonnateur u ni ENA nga jànge munoo wax ni que ENA nga jànge ni ministre rapport IGF jàpp na ko parce que nag jot na ñi xam di wax ñi xam administration di wax ñi xam nan la réew bi doxe di wax parce que IGF ministre mënta bokk ci champ d'action inspection général des finances kuy ordonner ay dépenses lay auditer kuy administrer ay crédit lay auditer un ministre n'administre pas seen débat yi dafay dégg ñu naan non ay faute de gestion mais kuy def gestion mooy gérer donc moom nee na ñun xamuñu dara de moom ENA la génne def na 15 ans ministère des finances bokk ak wala bokk ak ministère waa IGF te ni xamul loolu lii ana politique lan moo ciy politique donc rapport IGF amul leneen li muy wax ay nitam naan non Macky Sall moom nee na euh, euh, rapport amoon na Ousmane Sonko bu xamul ni que décret bu ko koy def di remplacer. un directeur da def rapport de présentation jox président pour mu def beneen décret bi jël ko nit ñi mooy fekk kon mu xamul léegi man dinaa bind man rapport man bu ma épinglé man kii kii kii sànq wax naa ko kii mi ngi nekk di abruti d'applaudir la jeunesse sénégalaise kii mi ngi nekk di yàq deru nit ci ay sos yoo xam ni moom xam na ni sos la moom mi koy wax xam na ni li muy wax du dëgg day wax ba ki ku ki koy tiim ci ginnaawam day tiit kan moo fi mës a gis rapport IGE ñu koy publier internet yow nga ni ENA nga génne nga ni rapport IGE bi nga lire internet la les rapports de l'IGE sont classifiés pour que nit mën ci jot dañ koy déclassifier yow nga toog tiim say junniy nit ni leen man rapport IGE bi nga gis internet laa ko gisee li mu wax ni que mu wax ni que juge bi loolu la bind ci moom na médecin yi dem xool ko il doit être un psychopathe, ñu ci bari ba tey ci suba waa Seneweb dama gis ñu bind l'ancien coordonnateur du Prodac musuma nekk directeur ministère de tutelle laa fa woon tey SICAP bu amee problème du ñu wax Ablaye Sow la directeur bu lañuy la ñuy wax SNHLM bu amee problème buñ koy audité duñ laaj Ablaye Sow directeur bu la ñuy audité Sénélec bu amee problème duñ wax ministre ba moo am problème nekkuma fi pour défendre le projet je me défends moi-même parce que man lañ diffamé parce que ay at ñu ngi nii ñu naan mbay projet am na ku dem fële génne génne génne rapport ak taxaw ci diggu assemblée bi te naan rapport baa ngi nii yéen ñii ñëpp ku ci yor rapport bi mais na ko dem jox. bu ko génnee léegi wax ji jeex bu fekk bu fekkee yor na rapport comme ni mu wax na ko rek génne donc bu mu nax nit ñi naan da koy politiser man ak moom yoonu Macky Sall nekku ci yoonu Farba Ngom nekku ci yoonu Pape Malick bokk li ci li leen ciy dugal mooy est que xam na ni que perte na mais daan nañ ci seeni i nawle ay journaliste yoo xam ne ay politiciens ñoo leen waxoon ni que rapport am na dinaa leen ko jox ñu bind ko bi dem tribunal nee nañ xaw ma lan Cheikh Yérim Seck mas na def déclaration wax ni que dama am interrogatoire euh, conseil des ministres mais pour la première fois dans l'histoire du Sénégal je parle devant témoin Cheikh Yérim Seck ba ko waxee tey le lendemain Seydou Gueye porte-parole du gouvernement moo def communiqué démentir ko man bañ ma jiiñee parce que ci ki yàlla jaarale muy joxe cër xëy na ñun ñii ñëpp ci keppaaram lañ nekk mais yàlla moo def man am moom man ak njabootam ñu seq leneen lu dul politique comme ni ma demee ba seq leneen lu dul politique ak Farba seq ko ak Ablaye seq ko ak sama nijaay Mbaye Ndiaye parce que ku nekk fa nekk nga jóge man sama yar mayuma nit wóolu parce que ba ñuy xeex ñi ñëpp ñoo doon xeex dàqu ma ci woon xeex kenn ëpp ci woon taxawaay kenn mu seppi ma ci kóolute dénk ma man duñ jaar ci man di ko yàqal je préfère man ko bàyyi ba ñu organiser clameur publique ay réseaux sociaux lañ ko waxee amul benn nit booy wax amul benn nit boo mën a jël boo mënoon wax ni que diw moo ni dama détourné vingt neuf milliards ma ñëw j'ai proposé ma démission pour dem jàmmarloo ak yoon comme li ma nekk di def parce que loolu lañ ma yare te loolu laa seqal kii ma loolu laa seqal ñii ma daan àndal maa ci gënoon nekk xale mën naa ko wax tey yàlla ko yàlla yërëm ABC Farba ñoom Mbaye Ndiaye Moustapha ak Mahmoud Saleh maa ci gënoon nekk xale bu dee ñoom je me dois cette vérité parce que xamewun ma jël lu ma moom xamewun ma ñàkk yara diku dama nangu nag ku ma yàpp lu ma doomu dinaa ko wax waaye ñun bokk ñoom taxawaay buñ ci indi fukk man dinaa jéem a indi juróom yow nga bëgg a nax ay sénégalais bëgg a saaga Macky Sall jiit ñu sàcc ñeneen ñi xëy na yàlla may na leen xolu muñ loolu mais man du ko muñ du ko muñ moom nee na am na rapport moom moo ko wax mais na ko indi léegi nee na dañ ko bëgg xañ pour mu nekk candidat bu fekkee lii moo koy xañ mu nekk candidat na jàpp ni que game over li xale yi di wax nañu bàyyi naxante yi nañu bàyyi yàq xelu ndaw yi ñun ki ñu àndal ñun ki ñu àndal ci ngor la ñu moom ñun ki ñu àndal ci njub la ñu moom ñun ki ñu àndal ci liggéey la ñu moom man neewuma sama leader transformé na Sénégal waxuma loolu mais amul benn pàcc booy jël ci ñuy dundee boo xam ne fekk ko un yóbbu ko quatre amul léegi nag pour tëj ci Ousmane Sonko jàpp naa ni xeex bi du xeexu affaire xeex bi du xeexu Benno Bokk Yaakaar xeex bi xeexu citoyen sénégalais yëpp parce que nit nit koo xam ni li muy wax lépp ay fen li muy def lépp dara du ci dëkk li muy wax yëpp gëmu ko li muy woote nekk ko du ci xam-xam du ci jaar-jaar du ci man-man du ci lu mu leen wan kooku lañ war puus parce que fépp fu jaar àppul génn na ko ENA bi génne foofu la magistrat yi génne ñu ko dàq jàpp fuuf ñoo fa nekk ñu ko gën a fuuf ñoo fa nekk ñun jàppul ci benn dëkk ñun ñëpp ñu ànd respecté justice sénégalaise mais moom ñi nekk loolu gën ci yées moo ci gën a yées le 23 juin fan la nekkoon mi doon ut ay parcelles yu jaay le 23 juin damay gis muy yónni xale bi ñu naan mooy t-shirt bi nga soloon ay xolla nit tolloon le 23 juin man bi may yéeg ci gri gri yi xaar leen le 23 juin bi may yéeg ci giri yi ma nekk ministre d'État may ñaar loxo ak loxo déglu leen ba ma koy def j'étais cadre de l'aviation civile j'avais le salaire de l'État du ma woon chômeur de dama daan liggéey tour de contrôle approche CCR manifestation jot ma saraxu samay collègues ñu téel ma ma dem manifester bi parce que ngëm-ngëm la woon parce que ki ñu daf ne ñu lépp lu ñu am nañ ko def ci réew mi tey rusuma ni moom laa àndal bu dee xam-xam bu dee xam-xam lii mu nekk di wax wane ne nekk xamul dara bu dee jaar-jaar musu fee def dara donc il faut arrêter il faut arrêter cette imposture au nom de la république il faut arrêter cet imposteur au nom de république il faut arrêter ce monsieur parce qu'il est en train de secouer les fondements de la République. Il faut l'arrêter parce que est en train de disloquer notre, notre société. Il a amené un débat d'ethnie. Il a amené un débat de religion. Il a amené un débat de tariqa. Il est en train de collecter partout où il y a des frustrés sa mission est de les contacter et de proposer une dissidence, uniquement pour accéder au pouvoir et assouvir ses C'est un danger pour la République, c'est un danger pour la nation, c'est un danger pour notre société, c'est un danger pour notre religion. J'appelle les hommes de foi qui pensent qu'ils accompagnent un homme de vertu. kuy fen kuy njaaloo ku nekk ci jubati kenn du ko jàppale bu ma déggee yenn nit yu nekk ci diine ñoo xam ni diine lañ leen xamee ñu naan non nañ koo bàyyee yéen ay nitu fitne ngeen l'islam moo njëkk a tere insurrection surtout boo xam ne day woote insurrection ci ay fenam yow yaa jiiñ mambay lii mambay di la gaañ dem tribunal nga ni xale yi génn leen ñu dee mais loolu ci dee def ni ci dëgg nga dee ci caaxaan nga deewe ñun ñëpp ay fàttaliku moomu di jóg bi ñuy xeex ne touche pas à constitution dëgg la woon dañ ko gëmul Mamadou Diop bi muy nodd pour ñu julli àjjuma man maa ngi ci ginnaaw ku dem xool vidéo yi gis ma ci tey kuy wax wax dëgg buy wax waxu combat bu sincère di nga tudd Mamadou Diop ana ñi ko deewaloon ci salon de massage bi kan turu kan ngeen ci xam ci ay caaxaan lay woo nit ci ay caaxaan lay woo kilifa yi ci ay caaxaan la bëgg a tase dëkk bi bu ngeen ko arrêté wu man en tout cas dinaa ci joxe sama bakkan pour mu arrêté parce que jihad bi moom loolu muy woote c'est de l'imposture ñun nag ñoo ci war a jëkk a taxaw ñun ñoo war a njëkk taxaw lii muy def di ñoo ko dàq benn ñaar ñoo ko ëpp fit ñett ñun ñoo nekk ci dëgg te ku nekk ci dëgg doo ragal ku nekk ci dëgg doo yox yoxi ku wéeru ci mur ci mur nga wéeru ku wéeru ci yàlla ci yàlla nga wéeru waaye ku wéeru ci rideau booy puuf di daanu Ousmane Sonko ci ay rideau la leen doon wéeru man tey ci suba dama ruus billaahi dama ruus dama ruus parce que xalaatoon naa ni au moins dina respecter l'élite de ce pays ou les cadres qui l'accompagnent yow nga xam lan mooy rapport li jaam nga denaa nga ñeme ñëw tribunal naan da ngay laaj ay rapport ay samay avocat jarul avocat le jour où il sort un rapport qui épingle Mame Mbaye Niang peu importe le rapport IGE IGF Cour des comptes FBI CIA rapport bu mu am ba bu ëndee man man démissionné jox sama bopp mais fenkat la du ko def ñun nekk ci dëkk ku nekk ci dëkk doo ragal waratul waratul parce que nag li ëpp ci askan bi ñu ngi gis li ëpp ci askan bi ñu ngi xam li ëpp ci askan bi ba nañ ko ñamu àndaloon baneen ko yeer bi tas na loolu mooy dëgg biir parti ñu ngi ut candidat c'est ça vérité yow man may xaar rapport amoo dara looy indi lu dul ñëw taxaw ci tribunal bi yor ay bëccëg ay ndomba man yooyu faalew ma ko xëy saafara xëy xurmu saafara bu defee ne ni ko yooyu moom ko ciy génn nax dina indi rapport justice dina am ci kàttan yàlla je vous remercie. Merci beaucoup. ma sœur na nga def